màggayam ba dafa wuuteeg ni gune yi màggee dégg nga moom li war a màgg ci weer ci benn fan la koy màgg li war a màgg ci xaat ci benn weer la koy màgg yenent bi boo xam ne ñaari weer da commencé di raam di raam xam ñetti weer la jóg taxaw ba xamee ñeenti weer la commencé jàpp ci miir yi nekk boroom yitte lool nag ba mu amee juróomi weer la ko di jéem dox ba mu amee juróom weer la mën a waaxu lool lool lool ba xamee juróom ñaari weer lay dox dox ak ku takku ku takku ba mu amee juróom ñetti weer la wax jéem wax amee juróom ñeenti weer la wax lu leer nañ fasha ba may fukki weer ci sanni nak sanni sanni dan dan niki bi am ñaari at ponkol la and ak mu nek nak borom yar borom teggiin amna bis halimatu mo tok gatti di dem benn gàtt ñëw ci mom mu fon bob bi du mooyu dem dim ci gatti ya dem ci gatte bu lu amé nak bayu nampalem ba sant yàlla di wëy di wëy di sant yàlla di wëy bàyyi nàmpaale ba naan alhamdulillahi alladi a'tani asal qullaama tayyibal ardani قصاد في المعدي على القلماني عيسه بالبيت في الأركان من الحمد مبولم قيت جانتي ياب لله شرنا نيال يالا لازم يقمن اعطاني جوخنا ما هذا القلام جيني غوني تيب الارداني كو سل جي ني اي مبيتم كو سل اي مبيتم دم رودنو مو سل لوخو مبو مانا رك لب مو سل قصاد كوينا في مالك بمني تلالتاي هاي قيمه انت غوني ياب man na onso maa ngi koy musul bi bayti ci gi gii ah, ci arkaan kay boroomu kenu ya borom yu dëgër ya loolu la loolu la wax dégg nga loolu loolu la woy moom kan moo ko doon woy mooy xaaris bun abdul ansa ngir kontaan nag mooy bàyyi nampalem ba dégg nga moom jikko alimatu saadiya loolu woy de mhm. ba mu amee ña gannaaw bu amee ñaari at nag lañ xar dënd ba ak kañ ak bañ koy yoni ak ba ngi la ñaan bam paré jibril mako kasté kaste dara dara dara lu ñu mëna xam génn ci mukk kenn xamu ko ba mu amee juróomi at ñu délé ko ci yaay ja ñu ko ñu ko délé kat ba mu mata fer ba mu ko dellooxee nag ànd ak cofeel lool yaay ji xam ko muy alimatu sadiq delloo ko aminatu amina xam ne kii bëggiram jeexul ci Mohamed mu joxaat ko ko ba ko joxaatee nag bañ koy bëgg a bañu xaddënn ba la ko jëkkër ji ne ñun kat bu ñu sàggane dañu am gàcce dañ ko delloo ji dañ ko delloo ji dégg nga kon noonu la demee loolu loolu lay loolu lay loolu lay nettali nag lay nettali de dégg nga dégg nga daf ko delloo yaayam ba ñu xëyee dënn ba ndax dafa jàqoon ñun boobu nga am juróomi at ragal nañ ci moom ci dafa yor jinne dañu ay àndaale ñu ne kon nañ ko delloo bala ñu xam gàcce te kañ ko nañ ko delloo bi nga xamee ne fer na waaye bañ ko bañ ko ni ma la ko waxee léegi bañ ko dellooyee am na gis ne ñi doyaluñ ci da leen ko joxaat ñu yor ko bu muy am juróomi ànd nag gaa yi ñëw di xaddana ba ñu delloo delloowaat ko ñu delloowaat ko kon noonu la demee moo tax mu ni sababuhu ak màggam maqu lamun déet benn gune sabuhu di màgg ko abadan walla wal yow mu màggaayu bisam màggaayu bisam saxarun day nekk weer ci ku dul moom màggaayu weer ci ku moom waxaamun màggaayu xat mu koy màgg moom sëruñ ci weer sëruñ ci kalam yi weeru borom baax gi nena na nee na xabaar raam na bisare ñaari weer ne fil ji mi ñetteelu weer ba alqiyaamu ci la jóg taxaw temm wa fii daalin ci ñeenti weer ba xadaaqee na moom sikal judraani di téeméer yi saa moom nekk boromu giite wa masi kàttanu dox fi ha in ci juróom weer la ko am wa asra dox dox bu gaaw fi waamin ci juróom benn weer wi saay juróom ñaari weer yenn saa mu ngay dox sahiyal moo tasimi doxu koo xam ne ko takku la fi ha ci juróom ben ci fi ci ñetti takallama la wax fi in ci juróom ñeenti weer fasaatoo fasaam nga fi ya fi yaa yi ci fukki mi yi muy natulo ab saral jur mi dan yi dan yi ñu mëna jam ñu jub loxo yi daq min qabl aami ñu njëkk am ñaara nak nag jafaran nekk na am ponkol ka nekkoon na sa aada bi nak borom teggi nak borom yar mu ñu laa ñel ni yalla daru adibin mbax borom yar go xamni sabu ma gëna fi a filiw ci jirim moo wax mu ne adaba ni rabbi fa asna ta'dibi ñu taqabala foon na raxas bopp bi kooku ci wàllu grammaire mooy taare wate damir parce que damir nekk mandarga mandarga ci ci ci ci ci maarifa taare yi noonu la ci ñaar muñu tasee kon nag taqaddama raasa ay taqaddama raasuhu la bëggoon waaye wéyu du ko xattan bon taqabala kay baal ma taqabala foon na saatun ab gàtt sa bopp ba fi soo di xalimatin way wetax ci teewaayu xalima a waxa sajadat sujjóot na wallat wa wallat moo wéet xam ne wallat wa wallat xasin bi waaw la mu dum mooy ilal xanam jëm ci jur ya a ah, boo wooyu juróom ba mooy comme la waxoon léegi xaalis an saa commencé na min sukkur yi woy sant dégg nga de bisaani yetin ni nga xam du mboolem xaay ñeen yàlla mu ci ñaaru at ma la ab ñaareel ma la te amoon rabbil waaxi bi kay borom maye ko maye bi rabbi suma borom kay suma borom waaye bi neexami kay may xéwal yi boo daa may nii gannaaw ñaari xat usani ak ñaari weer suqa xareef na loo ñeel ko sa ba ak bañ koy yónni yi ak bañ koy rañaanee li salami dëkk la bu ñu ne dëkk ñu ne ñu ne palaas duroo dënnam ba na xatamat kaste na ko yum nal amin ñi day joor jibril ba falaam yu sa si waleeful la nga xam ne fii mu wëcca xam man kaste goo xam ne xëy na mu tasi bi nekkul goo xam ne gu ñaaw la gu ñuy siiwal la dara feeñu ca kaste ga dara dara feeñu ca amul lenn lu ci génn lu ñu mën a mën a xam déedéet ndax ndigal la moo tax dégg nga ne na rudda delloof na ko xama xam sin atum juróom lu ummi ci yaaje mana ila ummi yi ci yaaje rudda delloof na delloof na sayyidina mooy naawi fanal bi rudda delloof na sayyidina suñu sang bi xama xam sin atum juróom atum juróomeel lu ummi ci yaaje ka raddi yi ni ki delloo am nga xablu boo xamee ñaari at ba mu feree xëy saqi waxtu koy xar ñun saa mi ngir tiit ngir jàq dégg nga ndax dañu yaakaar ne kii dafa yor àndaale ñu ne kon nañ ko delloo ji bala ñu ci xam gàcce ñun saa mi mooy taru taru tiitaange laakin no waaye rek dafa delloo na ko isaaka boobu le kan ma ko delloo aminatun ku mu ko jox li séeri ñeer ka ko doon jaabal mooy ko nampal muy alimatu imma tuqaas yi ngi la mu jànkuwante mu ci moom min adabin ci méttit tabarakallahu sadaqallahu al-aziim bal xuzul karim